man daal am ma rien que pour contre man Faye nee naa la marché yi moom d'accorduma xam nga wax naa man wax naa d'accorduma euh, aide bi rafetlu naa ko ci ni ko président doxalee ni ñu ko doxalee lu naa ko euh, mais dañ ko war a def nii wala def nii dëgg la mais am na fu mel ni Côte d'Ivoire xëy na def nañ koy transfert wax def nañ feneen yeneen réew na ne mais réew mu ne dafa am nu muy nu muy nu muy fonctionner ak nu muy doxee ah bu dee xam Sénégal la Ousmane Sonko wala keneen président li mu xamee réew mi kenn xamee ku ñaata yoon la def ay tournée ci Sénégal partout ba ci Sénégal gën a ci jeexital fa réew mi yem ah nan la dundee réew mi yan poste la occupé ci réew mi kon situation yooyu ay récupération politique ay occasion wut bës man pour man fii ñu toll daal ah mais moom Ousmane sonk bës lay wut leneen la du amul leneen fii ñu toll nag man bëgguma ci wax lu bari parce que situation moo ko moo ko laajut situation yii moo ko laajut man bari na lu ma war a wax de mais nan ba affaire bi jeex bari na lu lu ma war a wax bari na lu ma war a wax ci ñi ma àndal lu ma d'accord loo xam ne d'accord ma ci giseen wi ànduma ci lu bari lu ma war a wax ci bu jàllee lii laa koy wax bari na lu ma war a waxit ci opposant bi bari na lu ma war a waxit ci côté sëriñ gi mu féete mais yooyu yëpp situation bi laaju ko soxna si may ma rek ñaan ma ma ñaan la nga bàyyi ba situation bu situation wase danaa la may émission bu am solo waaye fii ñu toll bëgguma Sénégal yi jëpp ma ndax Sénégal yi coono yi nekk jafe yi nekk wax naa la ko tesee na ma góor ñoo xam ne da ngay xool kii xool ne kii dund na ba am cinquante ans wala quarante mu mosut a tàllal loxo nga gis ko muy tàllal loxo Touba Gueye da romb nit mu ne ci ñoo xam ne yow ci sa bopp da mujj ay say rongo ju wadd parce que da leer na kii ngay gis doomu aadama ji nga gis billaahi walaay taala yi lu mu doogoo sax amu ko ci mi ngi woor yow man damay dem ba bu may dem bu ma toogee bu ma yoroon ñaari junni sax bu may dem dërëm du ci nekkati dugg rek dugg rek bu ma duggoon pour jënd sama ration toog bu ma duggee man li ma yor sax du dërëm du taxaw kon jafe-jafe yooyu booy génn ci Sénégal yi di xool coono yi nekk vraiment boo leen yëbut boo yëbut Sénégal yi doo boo leen waxee ci politique sax dañ laa war a jëppi situation yi fi réew mi toll képp kuy wax ci politique wala ngay def euh, euh, génne yenn kii di wut bës wala ngay wut ay ay kii ay mais dafa jotagut moment bi jotagut dafa am ci fun toll nan jàpp ñaan yàlla parce que ñiy wax ñu ci bari yéeguñu ko waaye am na ñuy bëgg a dee. Sonko yëgu ko ah man mii di wax ak yow man naa wax ne yëguma ko mais yëg naa ko ci sama biir parce que képp kuy dimbali nit rek war nga ko mën a yëg ah mais boo déggee ñu ne yëgu ko mooy bu doog jotee moom dana am lu mu dogee ah man mi bu doog jotee dana am taata bu moo dogee président muy suñu clip bu doog jotee dana dana ko am mais am na nit ñoo xam ne amuñu ko soxna si. soxna si li am ci réew mi am na nit ñoo xam ne amuñu lu ndogoo benn tàndarma bi gën a néew kooku nag bu fekkee ne réew toll na fii président ba jëkk di takku ñuy xool nan la ñuy dimbalee nit ñi nan la ñuy demee ba duñ egsi ci crise boo xam ne ni xiif lay doon duutu nekk corona ah nan la ñuy dem ba nit ñi di wàcc ci parce que am na benn interview bu ma fa doon gis nga la xewoon Rwanda lu nit ñi mën a bàyyi xel la xisa la boo xam ne bu reer loolu mais bu am importance la dem danoo Rwanda ba guerre bi amee coow li am bi gars yi demee ci àll ba yàq fi nga xam ne fa la golo ya doon naanee ban golo ya mar amatuñu lu naan xam nga lan lan def danoo wàcc ci dëkk ba golo ya danoo wàcc ci biir nit ñi lan wàcc jànkonteeg ñoom fan nit ñi di wutee ndox ak di kii ñu jànkonteeg ndox engagé leen waaye segam golo moom man loolu asamaan ak doomu aadama ndax xam nga fi may waxee nit ñi seen jafe-jafe yi ñu nekk ak xiif bi coono bii ñu nekk mais mais nan ñaan yàlla mu gaaw jeex nan ñaan yàlla nawet bi jeex nan yàlla yàlla ndimbali président bi def ku ne tamit jàpp ci ñenn ñi def ay ndimbali ñu continue ndimbali yooyu di leen jàppale ban weesu situation yi waaye am am na ñenn ñoo xam ne ñu ngi def tout le moyen pour jàppale nit ñi ah président def na signe bu rafet li mu def liggéey na en tant que wan ne moom mooy président de la république génne ay idée génne ay xaaj jël ci ay fonds ay budget yoo xam ne ñeen ko watee la ay ministère la fenn fu ne mu cof fa dara dajale ko jëlee ko ci corona bi jàppale nit ñi ah ay ay acte symbole la bu am solo mais loolu rek dafa doyut ah nit ñi it am na ñenn ñoo xam ne ku ne génne nga ndimbal dimbali ña a gën a jege hmm? ah, mais ndimbal loolu dafa am ñoo xam ne xëy na defuñu ko waaye ñooñu it ñëpp nañ ko def rek kenn ku ne ka ngay ka nga sësool nga jàppale ko dimbali ko ban génn situation yi waaye situation yi fi toll képp ku fi wax wër wër bës wala ngay wax ci politique di xaabaabal wala ngay def leen ah Sénégal yi taluñu loolu. te ku koy def yaa ngi jéppil lu sa bopp jéppil waale euh, la nga amoon ci am na ci ñoo xam ne nii ku ko ci def bu ndeelaatee élection yi di ñëw bu amoon benn bu genn bu tudd euh, euh, da nga dégg dëkk sangam sero sero parce que nit ñi ñoo ko tëlu. yaakaaroo ne dafa mooy lan sa si nit bu fekkee ne dafa tëdd amul lum lekk amul tàndarma bu mu dogo xam nga lan lay xool fan lay def am tàndarma bu mu nit ñi fii ñu toll danoo tëlut ay waxi politique tëluñu koy wut bës. képp kuy wax na jëm ci ndimbal képp kuy wax na jëm ci ni ñu ñu fajoo képp kuy wax ni wax nu ñu jëmee ci nu aaroo waaye naa attaqué go état naa attaqué sëñ Modou naa attaqué diw yooyu amul sel heure bi du heure man mii di wax yow bari na lu ma log lool ak bari lu ma log sax soxna si bari na lu ma log waaye wax waxtu bi jotagut bari na lu bari na yu ma metti lool ci man yu ma metti lu ci nekk rek bu ma ko jàngatee du dëgg bu jot jot wax jotee ma wax ko jamono ji moo laajul wax mu amul laaju ko moo tax nag képp kuy wax rek nit ñaa ngi lay xool rek